rey gi nag bëri na loolu loolu loolu ci réew mi ba nga xamante ne askan wi tiit nañu euh, kenn xamatul looy def ndax wàllum insécurité euh, koo laaj rek dafa naan la man daal sama kër euh, farata moo ma fay génnee ci noonu nag la gis ni week-end wi samba booy yi daal dañoo gën a rakkaaju ndax après pikin ak Wakaam ak Zangbaw tey nag ci suba fële waa jàmm gën ñoom ñoo aye ñoom nag dañoo yeewoo tey ci tiis arnaqueur ndax xale bu góor bi ngeen gis ci nataal bi di wuyoo ci turu gàbbu moom nag lañu boom ku def ñaawteef bi euh, dafa bokk euh, ci famille yoo benn mbër bi nga xamante ne dafa war a euh, bëre tey ci dibeer gi fi nga xamante ne moom mooy arène nationale ci noonu nag la suñuy naataango yu féete fi nga xamante ne post Afrique jokkoo ak kenn kuy liggéeyee fi nga xamante ne moom mooy CNG waaye moom daal dafa ne rek bu ñu wax turam moom waaye ji nee na information bi nii lu am la te nag ku def lu ni mel nekkul kenn ku nekkul mag wala rakku ki nga xamante ne moom mooy mbër bi di Mama Lamine euh, Mama Lamine nag ni ko waa axlu làmb yëpp xame euh, dafa waroon jàmmaarloo euh, tey ci dibeer gi fi nga xamante ne moom mooy arène nationale ak ki nga xamante ne moom mooy Garga 2 ci noonu nag moom rakk wala magu maamalamin bu mu defee ñaawteef bi rek dafa daw taxawu fa ci noonu nag la takk der yi tege woon loxo ki nga xamante ne moom mooy Mama ci biir l'enquête bi daal ñoom bu ñu xoolee ni que amuñu euh, dara lu ñu koy téye euh, noonu nag lañu ko libéré moom moom Mama euh, ba nga xamante ne waa CNG daal nee nañ dañu maintenir combat bii ni di Garga 2 ak Mama lu amaat nag ci ay xibaar rek dinañ leen ko indilaat di leen di wax rek ngeen wéy di abonné itam di appuyer ci cloche de notification bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax jërë ngeen jëf